jërëjëf tey nag mi ngi nii euh, As taaliba taalibe Seydi Aboubacar Sy ak ki nga xam ne moom moo di pend tey ñii ñooy sama gan tey ci émission bii nga xam ne mooy nay neex nay neex nag jàppale ni dama leen waxoon rek saa su ne mën naa fi dalal ku nekk wàññil leen ma son bi tuuti rek wàññil leen ma son bi tuuti rek nay neex nag dafa nekk émission boo xam ni jàppaleen ni kenn ku nekk rek jàppale ni mën nga fee teew tey jii tey ñii ma dalal kenn ki mooy As Malick kenn ki mooy pend ñoom ñaar nag yàlla dogal ñu bokk liggéey bi ñuy liggéey muy comédie ah ci biir waxtaan fa ñu gisee nanu gisantee yooyu yëpp danañ ci waxtaan tey ba mbëggeel dugg seen biir ñu fas yéene dund li nga xam ne moo di love love indépendance love indépendance léegi lu ñuy def léegi dañuy bàyyi aas mu njëkk nuyoo wala jigéen mooy njëkk jigéen ñooy njëkk nuyoo ah ay ca kon euh, mais pend pend sañ sa ngeen de <laughs> waaw góore kilifa de as nuyool kan ay ca kon ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur ITV bi as ci loo nekk waaw ça maa ngi nii si jàmm bu baax waaw asalaamaaleykum maa ñëpp nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna nuyu di la nuyu sama tonton di ziar di nuyu waa télé bi nuyu ñëpp macha allah nuyu maa waa Dagana fi dëkk waa Kër Momar sar sunu dëkk. waaw may nuyu ñep dal ma sha allah walu yep ma leen nuyu tarkal sha allah may nuyu ñep dal li li as xam ngeen as sama jarbar ndaysan ño bok suñu Kër Momar sar ño bok suñu Dagana. Ah, euh madam, madam, madam, madam ñu ngi ñu bàyyi la nga nuyu respectateurs yi soxna soxna Pend tubarkal nga xam ni eh, ki la sañsel naxu la waaye tamit seen couleur and rafet loolu ayca Penda. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu di nuyu sama yaay <laughs> man moom bala maa nuyu kenn sama yaay laay nuyu. ndeysaan. maa ngi nuyu sama yaay. di mm-hmm. nuyu sama papa. di nuyu sénégalais yëpp eh, daal. Mm-hmm. parce que aw ma seen fay dan maa bëgg daal. ndeysaan. kon maa ngi leen di nuyu bu baax baax baax di nuyu Cheikh Sarr. maa ngi lay fay maa ngi lay fay borom bi. waa dégg loolu <laughs> tuddee naa la ko. maa nuyu bu baax. di la ziar. Mm-hmm. di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn. Mhm. di nuyu kin defal yi daal. après dinañ ko tudd daal. Modou Faye Muslim Couture moo leen sañse Muslim Couture. waaw Modou Faye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko remercier. mais mais mais mais mais nag yow nag penn sa xol bi toogul de dégg naa danga dem da dem yóbbu tissu bi yóbbaale mesure as. Modou Faye Muslim Couture di la ñawal nga jekki-jekki jàpp coppati Modou Faye Muslim Couture naan ko léegi fi mu toll ni takk ma ñaareel benn yoon loolu nag fa moo ko direct as as xam ni yow mi sa xol bi toogul non sama xol bi toog na sa xol bi toogul de non toog na toog na ah, baax na man xam naa de li ma yëg nii moom sama <laughs> jarbaat bi li may ragal mooy nga teg ko naqar nag loolu laay bañ ah. parce que relation yu mës a am yëpp day jekki-jekki mm. keneen ñëw daal di ñëw takk yóbbu <laughs> jekki-jekki xale bu jigéen bi war ko te bugguma nag mu dund ko ci yow bu ci yàlla àndee daal incha allah. Eh. <laughs> ah kon baax na léegi léegi as ñu ñu ñu fàttaliwaat euh, internet yi nekkee ci page officielle bu ITV partage et commenté bu ngeen di partage di commenté rek jàpp leen ni mën nañ leen këf boole leen ci teraanga yu ñuy séddale ndax it nag ci ngeen bokk mi ngi noonu euh, mais as li ma bëgg wax mooy as euh, yaa ngi juddoo Dagana yaroo fa màggee fa après dugg Dakar lan moo leen di Dakar as. waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi juddoo Dagana yoroo Dagana bu may ñëw Dakar fii nii euh, théâtre indi mu woon dama ñëwoon pour seeti mbokk yi xam nga waalo waal rek daa bëgg ay mbokk affaire yooyu léegi nag si laa dajeel euh, Jean Michel après ñu waxtaan mu yóbbu ma riiru tribunal mooy ñoom jàllu nekk. riiru tribunal waaw mais avant boobu maa ngi doon def théâtre Dagana. Mm-hmm. léegi nag si la ma yóbbu riiru tribunal ma nekk fa nag ba tey yàlla def lii mu def nii. wa sila la ñëw Dakar intégrer nak rire tribunal ba tey ji fala bok ni ok donc yow bi ngay bi ngay joggé Dagana di ñew Dakar da nga ñew uniquement pour seet ay mbokk. waaw jeki jékki après ñu intégrer ci théâtre bi nga commencer théâtre. mais mais mais mais quand même bi nga juddoo Dagana jang nga arab jang nga école yooyu yëpp. waaw jàng école ba nouveau BFM. dem nga ba BFM. wa nouveau BFM 4e dal 4e wa après def euh, def. Euh,

nekk si football beeg affaire yooyu yaa bëgg a xam. <laughs> <laughs> nekk si football bi affaire yooyu. football loo ci war a mën nag. waaw ah, mën naa football mais est-ce que fii am na am na am na équipe football Tungani. non amagu ko nag mais ñu ngi koy jéem daal ñu ngi si nànk-nànk. am am kon ba léegi ni amagul. non non amagul te am na réew yu bëri yoo xam ne am na équipe am nañu ay équipe yoo xamante ne si ñu ay surmouillé am na. am na ñoo xam ne ay ay lañu am na ci équipe yoo xam ne ay kii lañu ay tungani. non si am na sax ndax dama koy gis. si net bi tungani laa war a ma. boo wax baax na yow saa yu nijaay nga <laughs> dama koy gis si net bi sax mais man maa ngi si commencé dox ay jéego pour nu am ko affaire yoonam pour nu représenter Sénégal. mais mën nga fubal trop trop trop. waaw naa na wax ban poste nga daan fubal. man nag parfois mu football si digg bi parfois mu football ailier gauche. waaw parfois ñoo mooy sut parfois moo sut affaire yooyu noonu. ok uh-huh. ah loolu de moom yéeme na <laughs> loolu yéeme na. waaw ah. mais mais ci ci ci ci sa xarit di nga doon àndal di jàngi école wala boog di football daaw ñu loon moqué ak taay bi. non non ñooñu samay copains noonu xam nga rek parfois sax man maa leen ruube. Oh, ñëw waaw parfois ñu may hmm? ruube. ñu nekk ay xarit d'enfance yu baax sax macha allah. macha allah amul benn problème muy dund normal si dëkk ba. Hmm. amul benn problème waaw. allah Penda. yow yow yow yow yow yow fan nga judo eh, jang nga école hein eh? hmm? man nguy la judo nguy caan dige jang na école parce que man sama yaay yar ma hmm sama mam bit ma tudde mo ma yaron hmm léegi ma jang école xam nga man moom damaa sob wa yow day moom léegi <laughs> <laughs> bi ma jangé école mm-hmm kelas gorila apa? Pas kada marah kalau tidur. Kalau suban. mana mau biar. Beda ke ya, mau tengah kalau tidur. Demar sob. Demar kalau tidur. Apa lebih mau tidur ya cila bayi? Man mau tidur umur bekasi partai. Sem sem de jangga be sem de. Jangga naba se eh, apa ya? <laughs> Tanjang menjang beli cipit itu mau siksa. Mm-hmm. Kalkin kesalahan defmu. xaalis kese calcul rek laa daan. calcul ay plus 1 égale 2. naa ci torop. calcul aayoon nga ci. waaw wàllu mbir moom. mais wàllu xaalis. wàllu xaalis ci nga aayoon. voilà mooy calcul mooy xaalis ngay lijjanti. waaw waaw. moom aayoon naa ci. mais bi nga bàyyi après bi nga bàyyi jàng. après ma bàyyi sama maam gaañu sama yaay jël ma récupéré ma. Mhm. dugalaat ma école nguy même chose rek loo bëggut bëgguma ko man moom commerçant laa mas a doon. Ah. moom laa mas a bëgg. man naa lijjanti xaalis dem jox sama yaay. macha allah man mu nekk non stress man yooyu laa dundoon. mais mais en fait yow bi nga bàyyee jàng rek tak danga nga commencé di dugg ci euh, commerce di def ay commerce yu ndaw. waaw man damaa bàyyi jàng après bi ma dikkee Dakar daan jaay ndox laay doon jaay ba tey moom laay jaay sax yenn saa ma def ci ndox ak boisson. Mhm. yenn saa yi ma yenn sama jaay ndox. Mhm. yenn saa yi ma jaay boisson yenn saa yi man daal commerçant daal laa moom. commerçant nga léegi su ma lijjantee jaay ndox su ma amee bénéfice yóbbante sama yaay. leen li ma def ko samay business parce que man damaa nekk fii ak samay rakk. ah say jigéen laa fi nekkal. say rakk yu jigéen nga nekkal fii dakaar yéen a bokk benn benn benn. ñoo bokk benn néeg ñoom laa fi nekkal jël uuf leen. def leen ni comme seen yaay daal parce que sama yaay moom mu ngi bawal nekku Dakar. mais say rakk yéen a yéen a tolloo wala yaa leen mag tuuti. ñoo ma maa leen mag. waaw ñoo sut ëpp non en mag. wante jox nañ ma cër moom lu ma leen wax moom la ñuy def moom incha allah ñemewuñ la ñemewuñ damaa am fula <laughs> mais noonu kañ nga dugg ci théâtre nag théâtre man tiktok laa daan def moom laay def ba tey sax mhm. man sérieux ma ci de bokk go ci benn théâtre mais pourtant man des fois dama lay woo téléphone nga ne ma dama war a dem tournée ji wala dama war a dem liggéey bu may tournée ji fee laay dem école tournée école élèves yi comédien ah. élèves yi ngay dem ñu dagg ticket 200 200 dajale ko léegi ñoom ñu def groupe def wër. Mhm. nga dugg ci biir di leen comédien yooyu laay tourné. ah yooyu école yi laay tourné. ci école yi bokk guma ci benn tourné. ci ci ci école yi quoi. voilà TikTok laay joué. Mhm. su ma paree TikTok dem naa jaay te chaque jour damay jaay. macha allah macha allah école yi 2 heures laa fay dem damay jaay ba 2 heures ma dagg li may def dem école.

yow sa bi daa yaatu de. non non non non mu boole la ak téer bi di la ñawal nga dem jàpp coppateem. non non. <laughs> as as monsieur Couture doomu ko day xaar as mooy première. <laughs> ay chéri bu ngeen pare rek may leen ma benn son shérif su ko defee mu ñëw dóoroon ñu benn playback après ñu enchaîner waxtaan bi ay chéri dem leen ma benn son. ay ca bu fekkee. régie pare nous ñu quelques internautes yo xamné page officielle bu euh, ITV Nous nuyu fa quelques internautes mën nañ quelques internautes su ko ñu keuf ci quelques internautes euh, jox leen ay cadeaux ngi fay gis euh, Fatba Cissé ngi hein, page officielle bu ITV Pape Sow Sow hein, ma ci yéen moo tax fi mu toll ma may ben bon bal ma may ben bon 25000 parce que contane guma ma ci yéen gisuguma ngeen partagé bu baax a baax ma régi may leen ma rek le temps que ma jël quelques internautes dal len defal ay teranga donc euh, Fatba Cissé Fatba Cissé yónnee ñu sa numéro téléphone euh, ci messenger dinañ la may 25000 euh, yo mille ni si bon lay don bon wu obala su ko defé nga dem jël ay jouer pour say doom mbaa say rak mayal tan tamit mayal nañ la tamit lii di parfum parfum bo xamni ni euh, dañ koy jëlee ci coffret euh, bi di Gloria su ko defee may la ko donc euh, Fatba Cissé yónnee ñu sa numéro téléphone par messenger ay ca coffret bu Gloria ma ma ci ma ñëw ci sama couple bi mais mais Chérif ñii couple la ah. couple bu nice machallah couple bu nice bu tolo ouais couple bu bu bu bu dope quoi bo xamné man bëgg naa ko couple la dé ba feeling aussi hein waaw am nañu feeling té té dañu dégg et puis ñoom ñaar ñoo bok li ñuy def <laughs> machallah mais mais noo noo noo leen gisee noo leen gisee war na war na mën a ne. waaw non dóob lii kay bu kenn dox ci diggante bi. yal na leen yàlla lafal cat. <laughs> yàlla sàmm leen protéger leen gis naa euh, symbiose bu am seen diggante ñoom ñaar. gis naa soxna si moom. mu ngi say sayam. moo gën a te gën a joŋe ah. non gi mu joŋe bu toog la joŋe. mais moo gën a joŋe <laughs> man dama gis ne As dafa xaw bëri kersa man <laughs> bëggoon naa xam ñoom ñaar yéen As wala wala pend kan moo ci njëkk Eh, kan mo ci njëkk comme niñ ko daal wax kan mo ci njëkk a coytu moromam kan sen rencontre nan la démé fan ngeen njëkk gisante yeen ñaar. lool mom damay demander sonna ci mu tont mu njëkk ci tont sonna ci aké vas-y. <laughs> fan ngeen njëkk gisante ah mel ne moom moo njëkk a baar de ngi ree di sëgg rek. man na yaakar na yaakar na mo dox lepp pend mi pend da dox lepp pend relation bi yëpp moko dox <laughs> pend yaakar na mo laaj numéro ba as ñi bee pend moo njëkk laaj. waaw liggéey <laughs> mais fan ngeen njëkk gisante yéen ñaar bi ngeen njëkk gisante naka la demee. ah dafa da ngeen amoon fête bu ngeen tënoon fête de ah. <laughs> Asmau banding. Asih wuyu. Man sama jarbaat bindi gini lu wuyu. Ah. <laughs> As. Penn kan ni ma non ya? Eh? waaw comme nu ko waxee rek mooy suñu feet petit taay bu ñu def chaque année du ta sec nu ñu gisante après ma xool ko si laa ko jël contact ni que pourquoi pas mun nu liggéey mën a mhm. ndax aussi tamit dafa yaatu ku nekk da ngay may sa loxo morom mhm. comme nuñ koy waxee rek man duñ ma jàppale ba ma egsi fii pourquoi mënu ma jàppale keneen tamit bu mu romb ma wala mu egsi fa ma egsi après laa jëlee contact am mën nu liggéey comme nu ko waxee rek tukkal àdduna xam nga rek ndax aussi tamit petit taay la mu mënul def la nga xamante ni nit ñi duñ ci apprécier apprécier ne waa amul benn problème ñu jàpp benn rendez-vous ñu dem këram def benn vidéo première vidéo bu mu def rek macha allah Sénégal yëpp apprécier mu ne ko am problème incha allah kon daanul liggéey. noonu mais mais bi ngay jël numéro liggéey moo la taxoon jog wala da ngaa jëloon pour au moins euh, wéttali sa xol. non sérée na liggéey moo taxoon mooy seen. liggéey rek liggéey rek nga ko doyee liggéey kase kase. mais yow yaa njëkk woo après bi nga ko woowee yow nga dem këram. waaw këram ngeen këram nga dem fekk fekk ji ko këram laa dem fekk ba après ñu def vidéo bi noonu mm. mais mais mais mais boobu euh, la mbëggeel gi duggee mbëggeel gi ni mu duggee comme mbëggeel ah, bi nan la duggee <laughs> nobent non nobent amu fi <laughs> da ngeen di joué rek mais nobante wu man de pour man nobante ngeen man. waaw amu gis yëpp pour man kenn ku ci nekk fi mu toll nii mi ngi mi ngi doxal <laughs> non c'est que nga rek bu ñu nekk si jeu bi moom. parce que man damay gis seen vidéo yu bëri da ngeen di ànd lonkonte surtout yow nag yow moom yaa ëpp looy looy looy looy lonk aas mi damay gis nga long ko jël sa loxo teg ki dënn bi daal di ki aas xaw a raay boobu bi nii bàyyiwaat mais mais mais am am na mbëggeel gu ne ci biir de. mais dañu liggéey rek liggéey rek. xam nga hmm. liggéey moom boo si nekk da nga koy jox àqam bu mu jar. Hmm. loolu kese la. Hmm. dañuy liggéey rek. liggéey rek rek rek. wa ñu ngi waaj yeneen ak yenen ak mais mais as bu lay vocal mba mu lay wo yow yow yow pend mu lay vocal mba mu lay wo est-ce que doo sentir touti des fois mu xaw la togn nan la mais nan la tay bi baax na wala nangam sangam est-ce que du koy def. non non. ah. sigil xol ma sigil xol ma. <laughs> non non. yow du tok nan la ay no forme bi tuwaar kàlla wala karab karab. as non ay mbalak rek as moom dafa ah mais tel micro bi mbalak kon mbalak mi ngi ci am. waaw dañuy kaf dañuy ree dañuy xappi dañuy soulagé wu xaaral ma dem page officielle bu xaaral ma dem page officielle euh. yop gaam kaay ma kaay kaay ma xamal la adduna du benn fan ki ngay tooge tey waaw bu subaa mën na la yaay kaay ma digal la nii bul di xool nit di ko ñeema ne la yëge

waaw waaw nene yaa ngi kop kop bakale may kop kop ji xale ngay kop kop bakale jéem moo te mënoo dabe yow jaare yow de moo ku ne ci am ko gaare jëlal ay ay waay li nga li nga nekkee day daal ma lay lebal mbaa saa la wute ñëwal bi man gis naa li may waree. boo defee ni li nga nekkee yëgu ma ko la. boo defee ni yàgg na yow la waaw. jëlal li waaw ay waaw waaw ay waaw xale ba xam nga ni moom la waaw xam nga ni man la

Euh, ce couple bi dinañ leen jox ay coffret ñoom ñu mën a donc lii lii coffret la boo xam ni ah bi yow yaa ko moom donc bii mooy gaamu euh, kii gaam baa ngi nii crème rose gis nga am nga booy sangoo dafa àndaale gommage am na parfum am na déodorant am na lépp loo xam ni soxla nga ko donc lii waa Cosmecap ñoo la ko jox voilà as yow it waa Cosmakeup ñoo la jox parfum bi nga xamni parfum de classe la gis nga mi ngi ni ay parfum de classe lan la jox defal la ci li nga xamni ni modi moo déodorant mi ngi ni donc lan ngeen di wax ñom ñoo leen jox lolu ah suma paré ana wa jollof ci kan nañu jégé si ah as lan ngeen di wax wa waa Cosmakeup wa di leel féliciter di leel encourager di leel aussi tamit di wax ni merci kontaanoon trop si cadeau bi mhm. Mhm. Mhm. di wax ni yalla sen ligay barkel amin yalla yalla defal yalla defal cham hmm lepp lu ni sentu ci sen ligay yalla defal leen ko dal di wax ni content non trop ci cadeau yi machallah content non noonu trop. Aïcha. wa Post My Cup ñu ngi leen di remercier ñu ngi leen di sante bu baax di leen jaajeufal di xam ne kado yi rafet na trop man mi nga xamantene dama bëgg di wax parfum moom. Mhm. lii ñu ma jox mom content na ci trop. <laughs> di leen ñaanal liggéey bi yàlla na barkeel. amiin yàlla na place bi doon ay place place ci barke Serigne Babacar. amiin yàlla na yokk ba yëg ko daal. amiin amiin na barkeel ci barke Seydina Mohamed. amiin kontaan nan torop. mi mi ngi noonu Cosme Kep nag mu ngi am na am na place fii ci Ruxulis Ket lépp loo xam ne aju na ci wàllu Cosme Kep cosmétique ñoo la koy jaay mi ngi nekk Sandaga Ruxulis Ket boo demee almadi ubbi nañ fa benn bu bees mu ngi noonu ci ale almadi bi rek donc boo demee fa am na benn boutique cosmétique boo demee tamit Saly am nañ fa boutique cosmétique donc lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci wàllug euh, lii taaral sa yaram wala xet gu neex bu ngeen demee euh, cosmétique ci boutique yooyu incha allah di ngeen ci mën a bànneexu beneen cadeau boo xam ni indil naa leen ko moom it ah moom mooy moom mooy jolof chicken jolof chicken mooy ginaar yi ginaar yi saf ba ca yax ba ah ay dama leen di yàq Pada ak yéen de fa ma Li, leen lii ginaar la yu ñu saaf ginaar ci biir yu ñu la bëgguma ko ibbi waaye ni waa Jolof ci kenn ñoo leen ko jox tey moom da il faut ngeen parce que kifek, dañoo teel filelen ñëw fek. ñoom fii la li takos fekk nu mu tuddooti fii la leen 13h fekk donc seen aña ngi nii lii la mooy yu neex yi nga ci def tamit cadeau la mu ngi noonu lan ngeen di wax waa Jolof Chicken ci cadeau yi nga xam ne jox nañ leen ko waa Jolof Chicken mooy ginaar yi saf ba ca yax ba ak tacos yi nga xam ne tubaarkàlla waa eh, Jolof Chicken man maa leen di sant parce que man géwal laa damaa bëgg lu saf <laughs> waa Jolof Chicken maa ngi leen di sant bu baax wax leen ma fi ngeen nekk nag ndax chaque jour dinaa leen del di ñëw di seet si de Jolof Chicken yoo xamoo Jolof Chicken ndax man moom damaa bëgg lu neex damaa bëgg lu saf ndax doomi géwal laa <laughs> xam naa tey moom bu ma jàppee lii ba bokk daa lay doon de ñu ngi leen di ñaanal yàlla na barkeel yàlla na liggéey bi barkeel yàlla na xéewal yi yokku mhm. yàlla na place bi doon ay place place ci barke sayidina mu amin ya rabbal alamin ñu leen di ñaanal amuñu seen fay daal mi ngi noonu as ni ngeen ñu teeroo rafet na trop neex na trop saf na trop pare guma ak yeen pare guma ak yeen des na des na as di am contentement rek di wax ni encore une fois merci si code yu ñu defar mhm. ndax jëlof ko cëb do xoolee 100 sénégalais mhm. du ñun ay sénégalais ñun kon buy dimbalal sénégalais lo duñ siy content duñ siy sawar di ñaar ñaanal ñoom it seen place yal na gën a yokk seen mbir yal na gën a yokk macha allah amiin kontaanoon trop si cadeau yi macha allah alhamdulilah yéen a ko moom mi ngi noonu Chérif moom it dañ koy daal di jox moom it benn parfum su ko defee euh, moom it mu mën caa bànneexu donc mi ngi noonu ay cadeau la yoo xam dañ koy joxe léegi nag comme jox naa samay invité seen i cadeau léegi damay xool page officielle bu ITV ma xool quelques internautes yoo xam ni instant bu ñu ngi connecté wu di partager tey commenté su ko defee ma boo ci teranga yi ma leen di fàttali ma neexee mu jël jël mbaa mu jël jël ay su ma neexee mu gunguni waaw waaw cuuraay li gunguni su ma neexee mu jël ba tub tamaree kay di ko wokkal sa dal tëmu sama naw be nga xam waaw waaw ay saful waaw waaw and you made for a life batch. Wow, wow. Nenala, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. ba ay jamba njaay woo kalma batu kamare la yore njaay woo kalma waaw waaw ay yow woo kalma ay ay jamba njaay woo kalma batu kamare la yore njaay woo kalma vraiment kontaan naa trop lépp yaa ko coaché jàmbaari jigéen dëgg nga <laughs> ah ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay encouragé et puis dila ñaanal suñu borom gën la taxaw ñu bayila nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. ah ñu ko dati Cheikh sar mm. ah ñun amuñu sa fay. parce que nit ki ku lay génn di la rek amoo sa yam. dëgg la parce que nit bu fekkoon da ngaa toog jàpp sa doo xam kenn du xamit wante yow mi ñu génn indi ñu ci plateau bi dina ci sonju am ci yéene yal na yàlla yeggale lépp. yal plateau bi barkeel ci barki mm. sayidina Muhammad. amin amin amin di nuyu muslim couture Modou Faye muslim couture moom moo la ñawal ñàkkul mu nopp wante dee ko day xaar ah <laughs> yow ya, eh, déedéet yaa Yangi, yangi, yangi, yangi, yangi, yangi, yangi, yaa wax di foofu am ndaxee gu di nuyu muslim couture parce que wax dëgg si yàlla nag coutural nanu waaw ah, parce que muslim couture da nga kaa wax rek mu nañu ñëw leen waaw ah. ma dem mu sonn ci bay bëgg a dee dagg ñaw ku ne xam naa ñun suñu ñaw yombut da koy commande waa gis nga avec ñun ñi ku ñuy ñawal suñu ñaw yóbbu dafa la waat mu sonn si torop jël ci temps am hmm. découragé wut ci ñun hmm. xaddi wut ci ñun ñawal ñu ñaw yu rafet ñu ngi koy remercier du baax as di remercier ki ñu jox tissu yi waaw ki leen jox tissu yi waaw Assane Fall Global Textile Assane Fall moo leen ko jox moo nu ko jox kooku ñëw bokk pap man kooku moom man sama tippoo la tissu bu ma ah. sol moom moo ma ko jox Global Textile ñu ngi koy remercier bu baax dikon ko nuyu di ñaan place bi yàlla na barkeel yàlla na doon ay place place amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah sama kanam ata <laughs> dama bëri di ade ya dama loola ya, da ma kee jommalu leen ah? waa jëlal li yow eh waay sama di nuyu sama rak sama xarit doomi Modou Lo moom ak makiya moo ne ma kenn bul dem fenn ñëwal ma makiya la makiya bu yem ndax sa kanam dafa ndaw am naa sa kanam ma ne ko kon boog yàqaate ma nu la xale bi Eh, temps bi jeex na de hmm? yal na ko yàlla may place bi temps jeex na kare kay jeex ñu bàyyi as mu tàggoo <laughs> su ko defee Modou Faye Mously Couture numéro téléphone am 77 la 531 01 01 Aïcha as tàggatool di am contentement trop sama tonton aussi tamit di la remercier di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan bu ànd ak wér ak sama grand chérifu machallah allah lu muy def neexna trop di remercier Senegal yep di remercier kuna ñawal ak euh, grand Assane Fall nga xam ci ne sama way la. <laughs> sama lepp la machallah mu bax ci artiste bu dé machallah artiste bu fa dem mu defal la teranga di ko remercier aussi tamet wa keur Momar sa wa keur Massar municipal sama keur Nijaay. Hmm. ñom ñep ma ngi leen di ziar ak wa dagane ma allah. di am contentement bu beure beure beure machallah allah ak les tin fils de Dagana ngi di ziar di leen béggee. di beggé ñep machallah